bon en fait man li ma bëgg wax je pense que lu simple lay doon yàgg naa ko wax dinaa ko waxaat tey année bi ñu nekk année 2023 bi ñu nekk année de campagne la pour yenn parti politique yi waaye année de combat la année de xeex la pour Pastef lii may wax il faut ñu déglu bu baax a baax. je m'adresse à la population sénégalaise mais je m'adresse surtout surtout képp koo xamante ni yaa ngi uyoo Pastef maa ngi wax ak yow ma ne bu benn patriote jàpp ni année bi année wu campagne la Pastef soxlawul campagne année bi année xeex la année de bataille la nañu toj suñuy bopp ñu dugg ci hôpital yi génn génnaat dellu ci terrain bi nañ ñu tëj ci kaso bi ñu génn ci kaso bi delluwaat ci terrain bi nañ ñu rey ñeneen jugaat delluwaat ci terrain bi dama ne dama ne qu'on se leurre pas les patriotes qu'on ne se leurre pas Macky Sall caaxaanul fawul kaful reetaanul ñun kafuñu caaxaanuñu fawuñu reetaanuñu lan mooy ndayu tey Ousmane Sonko waroon na toog fii animé conférence de presse génn këram pour ñëw toog en tant que citoyen honnête libre ñu boko boko ko taxañ ko delloo ko këram ngeen yaakaar ne day caaxaan ngeen yaakaar Macky day caaxaan Macky Sall caaxaanul te bu fekkente ni sa projet pour lequel on s'est battu presque dix ans dañuy toog bañ ne ay weer moo ci des ñu koy salfaañe di ko ñàkkal fay di ko tombé dans l'eau yéen seen bopp Macky Sall comme il l'avait préconisé pour Abdoulaye Wade en 2012 il sera dégagé du palais mm. il sera dégagé du palais et dans les plus brefs délais parce que bu caaxaanulee toute cette machination la ci kawam lay mujj bien avant 2024 askan dara attalu ko réew dara attalu ko te ñu ko opoon doole téeméer junniyoon ñoo fa nekkoon tey ñii ñu ngi ci biir suuf ñii ils ont fini de façon très barbare ñii ils ont fini de façon très animale je le dis et je le répète et à tous les militants amul mot d'ordre bu ñuy xaar amul stratégie bu ñuy xaar amul toog naan non Mbacké la xewee esegul Dakar amul naan non c'est Bignona esegul Thiès dama ne à chaque fois que le besoin est là que tout le monde saute, que Mbaké soit à Dakar, que Dakar soit à Ziguinchor, que Ziguinchor soit à Bignona, que Bignona soit à Tamba, que Tamba soit à Saint-Louis, et que ça se manifeste partout au Sénégal. Que ça se partout au Sénégal. Demandez, notre droit de résistance est constitutionnel. Et on l'exercera pleinement et définitivement, entièrement, comme Macky Sall sera tient pour dire. 2024 du bokk te Sonko day bokk par force doole mbaam par force day boole bu leen neexee nañu dem toog seen seen i tribunaux atte jugé ne Sonko tëj nañu la Sonko lay bokk par force on ne compte plus cette justice et là on s'adresse à la justice sénégalaise qu'ils prennent toutes leurs responsabilités la justice sénégalaise lépp lu ci magistrat def billahi wallahi wa taalahi di nga ko layoo après 2024 parce que on tiendra en règne ce pays lépp lu ci waay def di nga ko layoo après 2024 et que sàcc yi ànd ak Macky Sall ñëpp en commençant Mamour war whatever ñoom ñëpp ils seront tous traînés dans la boue que tous les jeunes soient très fermes et restent très mobilisés y' pas de stratégie à attendre y' a pas de truc à attendre dama ne à chaque fois que le besoin se fait ressentir na fépp mel ni fépp na fépp mel ni fépp. ku dugg hôpital génn hôpital dellu ci terrain bi tant que Macky bàyyiwul du ñu bàyyi et Macky sera dégagé du du du palais comme il avait demandé ko Abdoulaye Wade merci chers compatriotes, chers confrères suñu suñu confrère